C'est pour nous un réel plaisir de participer à cette grande rencontre des femmes leaders ici à la place Mamadou avec des femmes engagées, des femmes qui entreprennent et qui réussissent. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur un grand homme très engagé auprès des dames pour le développement local, je veux nommer Monsieur Abdoulaye Dieye. Mais nous mettons également à l'honneur des femmes qui s'engagent dans l'activité économique, dans la création d'entreprises et dans la création d'emplois. Tout d'abord, mettre en lumière la contribution de l'entrepreneuriat et du leadership féminin à la valeur ajoutée de l'économie sénégalaise, cet ordre le coup à différents clichés. Oui, l'entrepreneuriat est un métier de risque, mais d'avenir, que les femmes embrassent et réussissent. Et oui, les femmes sont aujourd'hui conscientes de l'apport de leurs activités dans le développement du pays. Actuellement, 31,3% des entreprises individuelles formalisées sont, de, sont dirigées par des femmes. Excusez-moi. Ce n'est certes pas encore la parité, mais la féminisation progresse à grands pas. Souvenons-nous, il y a encore peu, les femmes travaillaient essentiellement de façon informelle. Il ne s'agit pas simplement d'un combat pour des statistiques. Vous le savez, la place des femmes dans l'entrepreneuriat est une donnée incontournable dans le développement économique du pays. Ces progrès ne doivent pas nous faire oublier les défis qui demeurent. Au-delà des difficultés sociales liées à la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, l'accès des femmes au financement et à la formation reste difficile. Les femmes manquent également d'équipements et d'espace pour le bon développement et la modernisation de leurs entreprises. L'accès des femmes à la propriété foncière reste un des principaux obstacles à l'épanouissement de leurs activités. Si je voulais être provocatrice ce soir, Je dirais à la manière de Louis Aragon qui écrivait dans Le Fou d'Elsa que l'avenir de l'homme est la femme, que l'avenir de l'homme politique est la femme leader. J'aimerais aujourd'hui parler au nom de toutes les femmes dirigeantes pour faire comprendre aux hommes politiques que le divorce n'est pas consommé, Et cette rencontre d'aujourd'hui en est la preuve. Nous sommes toujours ensemble. Cependant, nous ne manquons pas de confiance en vous, mais nous voulons balayer le cliché de la femme à qui l'on remet un coupon de tissu et une maigre somme d'argent pour qu'elle applaudisse d'approbation un discours dont elle ignore même parfois le sens. Et à la place, l'union des femmes pour désigner un leader politique, sensible à leurs inquiétudes, conscient de leur importance dans, dans le tissu socio-économique et prêt à les accompagner dans leurs projets. Nous entendons par là un partenariat sincère et durable entre vous et nous, marqué par le respect des engagements que nous prendrons. Et ensemble, valoriser la création d'entreprises au féminin, car c'est donner envie à d'autres femmes de se lancer et de réussir. Mesdames, Messieurs, pour conclure, je voudrais rappeler que la politique d'égalité des chances entre les femmes et les hommes est gage de démocratie, de justice et de développement économique. Nous devons chacun dans notre secteur, renforcer nos efforts pour faire évoluer les mentalités des femmes et des hommes de notre cher pays et l'enrichir de tous ses talents. Je vous remercie. Ah, ah, mais. Euh, dama am mbégte tey parce que ñuy organiser les femmes leaders les femmes leaders de Thiès lii moo wane ni jigéen ñi gëm nañu seen bopp gëm nañu leadership féminin ñu delloo njukkal kenn koo xam ni wax dëgg yàlla mooy suñu lépp tey jii malgré la pluie il a réuni tout le Benno Bokk Yaakaar Moussa muy le directeur général Abdoulaye Dièye muy yaakaaru Thiès muy yaakaaru ndaw mi muy yaakaaru si leen ñi muy jàppale bi dara jumul woon dara avant muy nekk DG la commencé di jàppale jigéen ñi di ko jàppale ndaw ñi di jàppale troisième âge mi ngi ci mosquée yi mi ci religieux yi mu ngi ci fu nekk donc c'est Thiès bi gañ tey jii tout le Benno Bokk Yaakaar est ñuy xaar ndigalu président de la république lii mooy wane ni benn lañu et c'est l'union qui fait la force donc euh, Ablaye dañu lay gërëm di la sant euh, mosuloo jóg di animer di animer le parti à parce que ñëpp xam nañu politique animation la surtout au moment où ñi ngi xaar. on est dans l'attente wax dëgg yàlla gëj ñoo gisee jigéen ñu baax ñii def lu mel nii ndax li nga leen defal donc jaaraama DG. dëgg la. may amaat mbégte ci femme leader yi parce nii la sànq euh, jigéen ñi fi jiitu wax nañu ko. jigéen ñi actuellement dañoo war a dépassé ñu leen di woo naan leen ñëw leen pour la mobilisation pour euh, je sais su xew pour ñu tàkk pour ñu jox leen ay yére jox leen ay ci ñuy ñëw déedéet tey jii xam nañ ni que jigéen ñi ñu ngi joué rôle bu am important rôle bu mag ci économie Sénégal ci entreprise yi parce que nag soo xoolee Thiès gi ma nekk. jigéen ñi fi yore entreprise par rapport yaa ngi cela 10 ans xam nañ ni na bu baax te entreprise yi ngi dox ndaxte ku xam jigéen xam ni jigéen am na fula am na fayda te jigéen bëggul échec jigéen bëggul défaite jigéen bëgg na lu mu jiite ñu am ci ndam donc ñun seeni yaay lañu madame en tant que la présidente je vous félicite je jigéen ñi nga xam ne ñëpp ñu sa ginnaaw. vous êtes en train de faire un bon travail. ñun seen yaay la ñu. on est avec vous. on vous soutient. ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam. Woo! nga xamante ni borom bi wàcce na ko tey lii day wane ni les femmes représentent une source d'inspiration mais également une source d'abondance donc jigéen ñi ñu leen di sant bu baax di leen gërëm di am mbégte vraiment teew si bésu delloo njugal nga xamante ni les femmes jàmbaar ñoo ko wootee ngir delloo njugal. seen président de DG Abdoulaye Dièye bala may yegg foofu damay nuyu ñi nga xamante ni mooy honorables invités yi nga xamante ni fi ñëw tey ñëw répondre favorablement malgré la pluie gis nañ ni ñoom ñëpp toog nañ parce que ku fi toog rek mën naa jaar ci sa tur sant la gërëm la ndax euh, gis naa considération bi ñu am ci man yëg-yëg bi ñu am ci man moo tax xus nañ ci taw bi caravelle premier ñëw toog xaar ñu ba muy jël sama discours donc maa ngi nuyu autorités yi fi nekk yëpp nuyu d'abord kilifa diine yi nga xamante ni ñoom euh, di leen ziar bu baax di kontaan si ñoom ndax it ñoom it rek moo leen ñor bu leen suñu sœur Aminta woowee pour ñu ñëw fekk bés bi ñoom ñu bàyyi seen yitte ñëw donc kilifa diine yi mënumaa lim. su ma ci limee Serigne Abdoulaye Mbacké bi nga xamante ni mooy fi jóge léegi nuyu naa Serigne gi fi toog sama xarit Serigne Cheikhouna na moom it bu ma ko nuyoo rek nuyu naa kilifa diine yi fi nekk yëpp nuyu les responsables politiques yi nga xamante ni ñu ñoo bokk vision ñoo bokk gëm-gëm ñoo bokk idéologie bi ñu am mooy accompagner la vision de son excellence le président de la république Macky Sall muy waa Benno Bokk Yaakaar yi nga xamante ni tey jàpp naa ni tout Benno Bokk Yaakaar est présent lii day wane ni rek union des cœurs bi ma yàgg woote tey ñoom ñëpp ñoo doon répondre favorablement pour ñëw ànd ak man si bésu delloo njukkal bi nga xamante ni jigéen jàmbaar def nañ ko ngir sargal ma mais également ngir animer euh, le terrain politique ici à Thiès donc maa ngi sant ñoom ñëpp. sant euh, sama mouvement politique waa Siggi jot na donc ñoom it gis na seen taxawaay gis nañ seen jàppale bi nga xamante ni def nañ ko boobu ba léegi su ma limee tur yi damay juum mais sant naa ñi fi toog yëpp kontaan bu baax si communicateurs traditionnels yi et artistes yi nga xamante ni jëm nañ fi euh, parole wax wax bi rafet mais sunu suñu frère Papis Diallo bi nga xamante ni vraiment xam nañ xariñam ak euh, engagement am si liggéey bi nga xamante ni moom lay def tey nag wax ji si jigéen ñi la jëm su ma koy jëmalee dama koy jëmale ci femme jàmbaar jàpp naa ni ñoom li ñu tuddee seen tur ça reflète exactement leur préoccupation quotidienne ndax ay jàmbaar lañu ndax sama xamante ak euh, madame Aminata Gueye madame Sy si liggéey la ñu si développement la ñu xamante mais également si gëm Thiès la ñu xamante moo tax boobu ba léegi ñu àndandoo jàppante ma koy accompagner parce que man jàpp naa ni jigéen boo xamante ne dafa nekk si yoon dañoo war dooleel dañ la war a jàppale donc nag tey loolu nga xamante ni man ak moom signé woon nañ benn pacte alliance depuis 2019 ma koy jàppale si projet yi yi nga xamante ni moom la am donc tey moo tax tey ñoom it am reconnaissance ngir delloo ñu dugal si bés bi nga xamante ni mooy bés bi nga xamante ni fii la ñu teew tey. Aminta nag euh, su may wax ci moom euh, xam naa ni duñ fi ndax c'est une femme battante c'est une femme engagée mais également c'est une bi nga xamante ni si traité am mooy liggéey mais également accompagner jigéen ñi. donc di rassurer les femmes jàmbaar ne leen tey li ngeen def wane na ni seen vision seen gëm-gëm mooy participer au développement de ce pays parce que discours bi nga xamante ni sa chargé de communication wax na ko donc je pense que ni lool rek day na discours jigéen ñëpp war nañ ci jël en exemple xam ni jigéen du objet boo xam ne rek dañ koy teg ku ko soxla utiliser ko soo paree nga bàyyi ko mu dem ay jigéen ñi ay femmes leader lañ ay femmes entrepreneuses lañ donc war nañ leen fekk fi ñu nekk dooleel leen si projet yi nga xamante ni moom la ñu am donc le message a été entendu dégg nañ seen préoccupation et je pense que ce pays ne peut pas se développer sans les femmes parce que wax ngeen ko euh, euh, proverbe bi mu on man dama koy gën a dooleel la femme je pense que on ne peut pas avoir un pays qui émerge mais également un pays parce que derrière un grand homme il y a toujours une grande voilà laa grandes dames les femmes jàmbaar bi nga xamante ni tey ñoo ñëw taxaw si am Ablaye Gueye pour jàppale ko pour dooleel ko ndax mission bi nga xamante ni moom la ñu dénk ñu mën ko réussir en tout cas toutes nos te xam ne ni nag comme ni ko waxee woon man du ma wax bàyyi ñun dañuy jëf parce que on communique dans action les femmes il faut les accompagner il faut les autonomiser mais également il faut les capaciter donc loolu la ñu ànd woon démb loolu la ñuy continuer di ànd tey donc dinañ leen taxawu seen projet taxawu leen seen formation également taxawu leen si seen financement parce que loolu moo nekk suñu vision loolu moo nekk suñu programme loolu nag mooy programme soon excellence le président Macky Sall parce que le président Macky Sall dafay teg jigéen au cœur de ses ndax bu ngeen gisee tey toutes les structures de financement jigéen la ciy jiital ak jeunesse donc tey entrepreneuriat capacitation financement président Macky Sall def na ci lu baree baree bëri ci jigéen moo tax tey jigéen ñi nga xamante ni kenn mësu leen woon xam ci politique nag kenn mësu leen xam ci taxaw ay base di tàccu tey ñoom ñoo ñëw ne gis nañ ni Ablaye Dieng yaa ngi traduire en acte la vision du président Macky Sall pour le développement mais également pour la l'entrepreneuriat des femmes dinañ ñëw ànd ak yow ci vision boobu pour nga mën ñu dooleel pour nga mën a ànd ak ñun ci développement. en tout cas xam leen ni maa ngi leen di rassurer les femmes am ngeen leader boo xamante ni li ko ñor mooy jàppale leen li ko ñor mooy le développement de Thiès mais également li ko ñor mooy accompagner les politiques publiques yi nga xamante ni son excellence le président Macky Sall moom la teg fii ci Sénégal di ko doxal donc di wax ñu rek ni sur le plan politique tey damay sant waa Benno Bokk Yaakaar nga xamante ni tey je pense que ni c'est l'ensemble de Benno Bokk Yaakaar qui, qui, sont venus répondre favorablement à cette manifestation. Alors, c'est a l'union des cœurs que nous avons fait nous Nous sommes en attente. Parce que tout leader, euh, je pense que les deux nominateurs que nous avons, le président de la République Macky Sall. Et nous avons la déclaration des candidats, Barina. ku nekk yaa ngi jóg ne da nga bëgg a nekk candidat Benno Bokk Yaakaar je pense que il faut qu'on ait raison garder parce que ñun ñëpp dañoo bëggoon président le président Macky Sall se présente pour un troisième mandat bépp leader bu taxaw tey ni candidat laa bëgg a nekk yow bëggoon nga président Macky Sall continue donc nag je pense que ni nañu ànd ak dal ak xam ni le président Macky Sall mi ñu joxoon confiance te dañoo bëggoon nga continuer euh, euh, euh, les projets de l'émergence pour troisième mandat il a renoncé par plusieurs raisons pour la stabilité, pour la paix, mais également pour que Sénégal mënu continuer euh, si jàmm ak salaam bi mu am. moo tax nag ma ni képp koo xamante ni euh, gëm nga gëmoon nga loolu war mën am raison garder déglu son excellence le président Macky Sall mu choisir le candidat man à mon nom je tous les responsables de Benno Bokk Yaakaar de Thiès restent en attente. de la décision finale du président de la République pour ñu désigner un candidat te candidat bu ñu désigner ñun ñëpp dinañ àndandoo booloo nekk benn terrain bi toute la région de Thiès liggéeyal président Macky Sall ba Thiès bëgg na mu nekk locomotive bi nga xamante ni mooy yóbbu coalition Benno Bokk Yaakaar vers la victoire en 2024 et ça je pense que je vais porter ce ce flambeau ànd ak les responsables les leaders de Benno Bokk Yaakaar ñu liggéey au niveau de la base pour porter la candidature bi nga xamante ni président Macky Sall war na jiital parce que jàpp naa ni ki nga xamante ni moom la ñuy jiital ça sera une équipe équipe nag ku si nekk da am pàcc moo xamante ni moom ngay liggéeyal te donc ñun loolu la ñuy xaar si président Macky Sall dina teg équipe boo xamante ni bu ñu demee 2024 dinañ mën a gagné élection yi parce que gagné nag mooy tax jigéen ñi yaakaar bi ngeen am ci ñun am ko ci président ñu mën ko continuer parce que dëkk nekk si yoonu développement nekk si yoonu émergence te nag émergence kenn la rupture dañ ko war a continuer donc tey jàpp naa ni képp koo xamante ni ànd nga ak man maa lay ñaan nga xaar la division bi nga xamante ni moom la ñu war nga ñëw ànd ak man ñu wàcc ci terrain parce que xam-xam naa ji xam ko lii si mooy doon la terrain ñun li ñu xam mooy dem si askan bi waxtaan ak ñoom euh, euh, euh, saafonte ñoom xool seen i préoccupation ñu mën ko saafara. te nag loolu mooy suñu mission loolu la ñuy doxal loolu la ñuy def ba ñu mën a egg si victoire Benno Bokk Yaakaar en 2024 parce que loolu je pense que ni mooy njariñu Sénégal parce que euh, les grands projet du Sénégal n'est plus à discuter su ñuy ñëwaat si réalisation yi fi président def duñ fi jógee mais tey jàpp naa ne sur le plan international bërgi démb rek gis nañ président euh, cër bi nga xamante ni CEDEAO jox na ko ko donc tey jàpp naa nous avons un leader à qui on peut compter donc nañ ko jox confiance pour ñu jiitalal ñu mën a ànd ak moom ndax ñu mën a continuer les projets de l'émergence pour un Sénégal qui se développe mais également pour un Sénégal koo xamante ni jeunesse bi gis seen bopp ndaw ñi gis seen bopp ndax le président Macky Sall place les jeunes au cœur de ses préoccupations donc ndaw ñi dalal leen seen xel. parce que ñun ay ndaw lañ ñoo bokk génération président bu ñu wóolee dégg ñu ay responsabilité c'est parce que am na vision ci xale yi am na vision si si si jigéen ñi donc dalal leen seen xel xam ne dëkk lii tax mu defaru mooy jàmm ak salaam bu leen kenn woo ci xeex bu leen kenn woo ci daal damay profité si occasion bi encore di remercier waa Thiès toute la jeunesse de Thiès nga xamante ni événement bu fi mën am Thiès a été toujours calme Thiès a été toujours dans la paix et la stabilité kenn mënu leen parce que maintenant la jeunesse est consciente dañu nekk ndaw xamante ni kenn du leen si loo xamante ni dina leen mën a indil ay jafe-jafe donc maa ngi remercier ñëpp di sant ñëpp di wax ni Thiès mu ngi nii la mouvance présidentielle mu ngi nii góor jigéen mag ak ndaw di fi teew ñëpp kontaan naa ci ñoom suñu kilifa diine yi kontaan nañ ci ñoom amit encore une fois de plus toutes nos félicitations vous avez continuer pour euh, un troisième mandat.